C'est énorme le nombre de personnes qui meurent dans des de la circulation au Sénégal. Selon l'Agence nationale de la sécurité routière, plus de 159 personnes ont déjà perdu la vie sur nos routes durant l'année en cours, ce du 1er janvier au Le classement édurant des universités du monde a été publié. Le classement concerne 14 131 universités de 183 pays du monde. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar la seule université sénégalaise parmi les 100 premières. Elle occupe la première place en Afrique francophone e position dans le continent. Le et ferme le top 10 Africains. Le verdict est tombé pour Khalifoun Sall dans l'affaire qui l'oppose à Adji Tchare Diaw. Il a été condamné par le tribunal des flagrants pour coups et blessures volontaires pour une peine de 6 mois, dont un mois ferme de prison et une amende de francs CFA. En Afrique, plus de 500 personnes sont mortes depuis juin dans les inondations les plus meurtrières de la décennie au Nigeria, provoquées par des pluies exceptionnelles forçant 1,4 million d'habitants à fuir leur foyer. La Tunisie vit au ralenti depuis le week-end dernier. La raison, une pénurie de carburant. Après les denrées de première nécessité, c'est désormais l'essence qui vient à manquer dans ce pays qui traverse une crise économique sévère. Sur l'international, l'Union européenne est en quête euh, d'un partenariat de long terme avec l'Algérie, pays fournisseur de gaz vers lequel l'Europe s'est tournée pour compenser la chute des livraisons russes. La commissaire européenne de l'énergie était à Alger hier pour faire ce plaidoyer.